wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad ibn abdullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in gannaaw loolu mbokk yi dellu siwaat nañu kon ci jotaayu daal ji defe naa lañu dégg ci suba alhamdulilah jazallahu xayran axaana Cheikh Ali ñu dékkaat noppi yi ak yi jubluwaat ci beneen mawdo bu xam ne bi ci ëpp solo ci jataa bi ci ni ñu gisee jadwal bi ci la bokk ndax bu ñuy wax imaam la shakk ñu ne xutba kon xutba bi naan lañ koy génneeg nuñ koy joxe ak solo si xutba bi am ak niñ koy waajale ak yépp yi aju ci loolu mbaamu jege ko loolu laaju lu dul dékkaat noppi ak xol yi jëlaat xalima yi note yi nga xam ne mooy yi gën a sew ci mawdo boobu bàyyiwaale xarit du ñàkk ay laaj sunu kanam incha allah ngir yi nga xam ne xaw na lënt ci ñenn ci nun wala mu laaj gën a yaatal duñu guddal lañuy bàyyi sunu cheikh hafidahullah mu tàmbali ñu incha allah fa jazakallah xeyran bismillah rahmaani rahim inna alhamdulilah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 comme li ngeen ko déggee ci al imaam Abu Bakar eh, tomb biñ fas yéene waxtaane insha allahu moo di xutbatul jumaa xutbab ajjuma ahamiya bim am maanaam solo si nga xam ne am na ko ak fan lan war a a jaar ba xutba boobu ñu dundal ko bam def ko taxoon a jóg suñ bëggoon a taxaw tuuti ci solo si nga xam ne am na ko door a dugg ci biir tomb bi danan gis ne bokk na ci yi koy wone moo di tashric gi nga xam ne dañ ko tashric maanaam yi santaane giñ ko santaane boole ko ak jullik ajjuma nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa dafa waral ne fu jullit ajuma nekk xutbab ajuma dana fa nekk kon li mooy ay bis gu ne xutbab ajuma dana am goo xam ne mbooloom jullit yépp ak fu jullit nekk jaadu nañu bokk toog déglu ko defe naa ne loolu rek doyoon na ngir ñu xam importance loolu ñaareel ba xutbatul jumaa mooy loo xam ne lislaam daf koo waajal ci ak waajal goo xam ne boo ko seetloo da ngay xam ne lu am solo la julli ji ajjuma ci kim doon farata ci moom farata la ci moom kenn ku nekk xam na ne jumaa yi moom ak nit ñi luñ sàggan sàggan sàggan benn conférence la boo xam ne saa bu <coughs> saa jotee nit ñi fu ñu mën a nekk daañu fa jóge ñëw wuy si conférence boobu yi mu wute lool ak conférence yi nga xam ne yow yaay jekki ba mu yàgg nga organise ko woote ci sonn ca lool def say carte yónnee bu waxtu wa jotee ngay xaar léeg-léeg nit ña teg ci ñaari waxtu sax door a ñëw wala lu ko jege léeg-léeg mbooloo su tuuti teew kon ab conférence la boo xam ne amul ay carte yoo xam ne danga ko yónnee waxtu wa bu jotee it nit ña dañuy waaj aw ci yoon wi te kenn néewu leen kaay leen ñëw lu dul ñoom ñoo xamal seen bopp ne dañoo war a ñëw te ba ñuy ñëwit kenn ku nekk la nga yéene ci sab xol mooy lu baax ngay wut si maanaam dangaa bëgg a ñëw pour jariñu buñ ñëwee ba toogit du aaje woo may def lu mel ne lii ma wone ci tablo bi naan fay leen portable yi wala déglu leen ndax nit ñi kenn ku nekk gëm nga ne boo dégluwut sa julli man na caa yàqu ndax ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki nga dendal sax muy wax boo ne ko woon noppil rek faf yow sa ajjuma mën na caa yàqoo walla nga ñàkk ci yoolub ajjuma kon kooka boo agsee da ngay tëye saw làmmiñ nañuy faral di def ci conférence yooyu it bu jeexee kenn ku ne ne jox ma parole amaana mën nañoo jaxasewaat wax ja ba lañ fa waxoon kenn du ko xamati loolu ba tey amu ci fa ida qudiyat salaatu fantashiru fil ardi la borom bi wax kaay leen toog déglu bu jeexee dem leen kon lépp loo xam ne dañ koo waajale noonu nit ka ànd akuk sell sol yéreem ya gën a laab ñëw toog di déglu te sañu te wax bu jeexee mu daal di yanu loola yóbbu kenn ku nekk xam ne lu am solo lañ koy yanu loo kon loolu ci li wone importance bi ci yi importance bi mu am itam moo di ne xutbatul jumaa mën na ra'yi aam islaami suñ waxee ne ra'yi aam mooy li ñu tuddee opinion publique léeg-léeg askan wi dañuy toog ay média wala ñeneen jékki-jékki tabaxal leen benn opinion publique leen loo xam dañu jékki ba jékki ba mu neex leen rek ñu soxla ko jekki jékki créé ko bu dul woon woon lu am sax danañ fexe ba dugal ko ci boppi nit ñi ñëpp d'accord ci ne lu mel noonu am na te loolu moom noonu lislaam yi fu ñu toll fu nekk ñu ngi koy def jékki-jékki rek amal loo xam ne ci ay wax lañ ko amal te amut ah li nga xam ne nag moom la xutbatul jumaa di def ci wàll gu mel noonu du ko tabax ci lu amut waaye day lu am nit ña sàggane ko duñ ko yëg mu jékki-jékki yëgal leen ko ñu ne ah mbir ma kon ndekete nii la su fekkoon ne organiser nañ ko mu tegu fa mu war a tegu nit ñi suñ dajoo mën nañ caa jëlee njariñ loo xam ne ñoom ñépp ñoo koy yëgandoo ci dëkk bi mën naa dem sax ba génn dëkk bi ba ci réew mi yépp mën naa dem ba génn réew mi sax ba ci ba ci réew yépp xam ngeen ne euh, problème mu euh, Afrique al wusta mi bi nga xam ne ñu ngi nekk ci ay jafe-jafe yu méttee métti nuy ñaan suñu borom tabaraka wa taala ñu génn ci ak jàmm biñ demee ba yëg ne mbir ma jaadu na jullit yi yëgandoo ko union des oulémas d'Afrique muy ittihaadu ulama afriqiya dañoo am xalaatu ne war nañoo def benn xutba boo xam ne dañ koy tasaare ci Afrique ñoom ñëpp benn bés ñi àndandoo xutba ci ndax population yi yëg li xew loola am ñu xutba ca ñi topp ko ba xam eh, ñaata nit ñoo ca xutba ca bis booba xëy na lépp mëneesu koo xam waaye jot nañoo takk daal junniy jàkka ak ñetti téeméer ak juróom benn fukk ci Afrique yoo xam ne bokk nañ xutba ci benn xutba ci bis booba kon loolu 1360 du lu tuuti am na mennum réew rek moo xam ne juróom benn téeméeri jàkka xutba nañ ci muy Nigéria ci benn xutba boobu kon foofa ña nekkoon ci biir askan yi di dund ci Afrique te xamuñu lan moo xew waaye ñoom ñépp ànd nañ dem julli ji ajjuma génn nañ yóbbaale ab xam-xam bu bees boo xam ne xamuñu woon lay xew ci seen mbokki jullit lu gàtt gàtt ñu mën a ñaanal seen mbokki jullit ñu génn ca musiba moomee wala bu imaam ñaane ñoom ñooñee ñépp ñu àndandoone amin ndax kat junni jàkka su su fekkee ne xool nañ ña fay julli si ñépp ci aw nit mbooloo mu bare bare bare kon xutbatul juma dana def lu mel noonu ba ca des moo di xutbatul jumaa mën naa indi waxdatu saf euh, fi l te waxdatu saf su amee istiqraarul mujtama moo ciy tegu waxdatu saf mooy nit ñi bennoo ci wàllu yëgoo ak bennoo noonoo wàññiku ci seen diggante léeg-léeg dara dana xew nit ñi nekk ca di ca werante te fekk mbir moomu jullit yi la itteel kenn ku nekk yor sa bopp sa xalaat yi bopp kii déggee ko ni kii dégg dégg <laughs> kee déggee ko ne ñu nekk ci jataay yi nit ñi daje di fa xuloo di fa werante léeg-léeg ay meroo ki dëddoonteeg yu mel noonu am ci kaw problème boo xam ne daa aju ci xam-xam te kenn ku nekk nit ñi duñ tëye seeni làmmiñ duñ tëye seeni xel ku nekk xalaatal sa bopp indi sa gisiinu bopp kenn ko nii laa ko gise kii ne ko man di nii laa ko gise ñu xuloo ca ba mën caa tàqali ko su fekkoon ne jàkka nag jël na place bi nga xam ne moom la war a jël su mbir ne cëpp moo xam ne werante war na caa juddu ci biir jullit yi kenn ku nekk war ngaa xam ne jumaa ja day buñ fa demee danañ fa jëlee loo xam ne moo nuy génne ci mbir mi kon jarul nu ci werante nan bàyyi ba dem ci jumaa ja déglu ba xam lu ci imaam di wax kon su boobaa werante waa xuloo waag wanante gannaaw baag dëddoonte ba yooyu yépp mën naa wàññi ko dañuy déglu ba àjjuma jot ñu ñëw toog déglu imaam su waxee ba dugg ci mbir moomee dana leen ca wax loo xam ne buñ ci jógee benn saf la ñuy doon ndax dana leen convaincre bañ xam ne mbir mi kët ndekke nun noo defoon ne nee la waaye nii la loolu ak jiital la rek ci wax ci importance bi nga xam ne xutbatu aljuma am na ko ñu jàll kon ci li nga xam ne mooy tomb yi nga xam ne ci lañ fas yéene wax muy anaasir yi nga xam ne ci la muxaadara bi jëm muy tomb yi ñu war a waxtaane bi ci jëkk ngir nu mën a jàngat lii tomb bi nu wax nii muy nii ma la waxee unwaan bi léegi xutbatul jumaa ahamiyatuha wa kayfa yumkinu tafciluha solo sim am ak fan lañu war a mën a jaar ba jëmale ko kanam danañ gis ne faaw nu jàngat ñetti tomb bu ci jëkk mooy man yulqil xutba kon faaw ñu waxtaan nag ci imaam moom mooy kan pour xutba bi mën a mel nam war a mel imaam nan la war a mën a mel ñaareelu tomb ba ca war a tegu mooy ma alladi yulqiihi mooy madmuunu al xutba la war a ne ci biir xutba bi loola lum war a doon ñetteelu tomb bi ñu nar a waxtaane mooy kayfa yulqiihi naka lay xutba kon daal suñ xamee kii xutba xam li muy xutbaa ak ni muy xutbaa ñett yooyu suñ ci génnee mu dana doon ab yóbbal boo xam ne ku ko yóbbaale mën nañoo jàpp ne mën ngaa xutba insha allah kon dañuy daal di tàmbali rek ca tomb bu njëkk ba man yulqil xutba kon kooku mooy alxatib am na ay mbir yoo xam ne ay fondamentaux la ay asasiyaat ay mbir yoo xam ne cosaan lu dëgër la ay reen la yoo xam ne dafa aju ci xutba bi ci xutba kat bi faaw nag mu sàmponte moom su ko deful reen bu ca manqué rek benn reen manqué ne ci garab gi te garab gi kat bu manqué benn reen ñaari reen ñetti reen nag la fay bëgg a sës kenn ku nekk xam na ko garab moom bu fa reen yi nekkatul day daanu kon xatib bi aajoona ay assasiyaat ba ci jëkk mooy al inaayatu bir rasidi al ilmi wa zaadi thaqaafi kii jóg di xutba ab jàngkat la war a doon jàngkatub xam-xam boo xam ne dafa war a jële xam-xam ci cosaani xam-xam yi nga xam ne fa lañu war a jële xam-xam muy alquran ak sunna ak téere yi nga xam ne moom lañ bind ngir mu mën caa jëlee moyen xam alquran ak sunna la cay cosaan nag jàng ci aw nit ñëw toog ci ay suyuux ay sëriñ ay jàngalekat ñu jàngal ko ba mu nekk koo xam ne xam na koo xam ne xam na su ko defee xam-xam boobee mu xam ci lay jël di jottali nit ña waaye ku xamul nag mënta jàngale faaqidu shay'i la yu'tihi dañoo wax ne nit ki lim amul lum tabe tabe tabe nag mënta maye lum amul loo yéene yéene jàngale nag te jàngoo kooku moom doo mën a jàngale. faaw it nag mu am li ñu tudde culture maanaam saqaafa mooy dëgg na jàng téere yi na xam fiq ba na xam usulul fiq ba na xam xadis na xam usulul xadis na xam Qur'an na xam tafsir yooyu yépp nag waaye nag nga wëlbatiku itam jàng jamono. jàng jamono ndax ki nga xam ne dafa bëgg a wax ak waa jamono faaw jéem a xam nag ñoom waa jamono nu ñuy xalaate ak lan mooy li ne ci seen biir ci ay tawat ak i ràgg ak wàññiku wàññiku yoo xam ne dafa jaadu ñu war koo saafara ndax ki ñëw di faj te ñim bëgg a faj xamut seen wopp kooku lu metti metti mënu leen a faj ak lum am am yéene du leen mën a faj kon bu ñuy wax ne saqaafa kooku mooy maarifatul waaqi te maarifatul waaqi firiwut lu dul euh, xam ñi ngay waxal ñoom li ñuy dund lu mu doon rek loolu lay firi kon kooku mooy tomb bu jëkk ñaareelu tomb bi moo di al imaanu bil hadaf kon mën nga cee dégg ne xutba bi ci boppam dafa war a am hadaf xatib bi xëy na du ñàkk Euh, danañ amaat yeneen i jataay yoo xam ne dafa jëm ci taxtiitu daawi jaadu ñu xam ne jëmmi kii xutba ci jàkka wala ñi nga xam ne dañ fay xutba war nañoo am benn hadaf stratégie muy benn jubluwaay boo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk am na daal luñ bëgg indi am na it luñ fa bëgg a jëlee loo xam ne leer na naññ ci seeni bopp ñu gëm loola bu wér waaye nag ca biir hadaf bu mag boobu nga xam ne mooy fukki at yi nga xam ne daal fas nañ ko fa yéene ba bëgg nañ nangam am fi nangam jóge fi kooku mooy objectif bu mag ba teewul nag benn xutba bu nekk war naa am benn objectif boppam maanaam jubluwaayu boppam boo xam ne moom tey lii la bëgg a indi tey daal bëgg na lii leer tey bëgg na lii jóge fi bu bu xutba bi jàllee su ko defee nag biir loolu ki nga xam ne moo yore loolu dafa war doon lu gëm lu muy dund kii woote ci dara te gëmu ko benn yàlla ci boppam mooy dogal nit ñi nañ ca war a jëriñoo duñ ci jëriñoo parce que barke du ca nekk parce que kii woote naan dem leen ca lee te moom mu taxaw fi mu taxaw kooka la muy woote du am barke nit ñi duñ ko gëm moo tax borom bi tabaraka wa taala daf ne amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun yonente bi sallallahu ci boppam moo jëkk a gëm li nga xam ne dañ koo wàcce ci moom mu'minoon yi gëm malaayika yi gëm kon ki nga xam ne dafay woote ci dara nga xam ne loolu moom la gëm moom lay dund guddeeg bëccëg moom lay xalaatal fan lay war a mën a jaar ba mu baax buy nelaw sax moom lay génn kooku mooy al iman bil hadaf saa boo xamee ne nit ki nag mi ngi ixtiraaq di xalaat yor itte ju muy xalaat guddi ak bëccëg ci mbir mi nga xam ne moo ko tax a jóg borom bi tabaraka wa taala moo ko ci defal tawfiq waaye ñi nga xam ne ñoo koy déglu itam borom bi tabaraka wa taala day dogal ñu mën a jariñu ci moom kon al iman bil hadaf unsur la boo xam ne bu mënta ñàkk la ba mooy al amal bi ma yaqul li muy wax mu ko jëfe li muy wax mu ko jëfe waaye waxuñu xatib boo xam ne kat bu taxawee mën naa wax a wax a wax a wax a wax ba convaincre nit ñi ci lépp waaye bu génnee nekk ci leneen déedéet waxee sut loolu waxuñu ne nag lépp looy wax lu ne rek na ko def ndax loolu it nag mëneesu ko mën ngaa ñëw di jàngale asaka te fekk yoru xaalis yow mënoo génne asaka mën ñëw di jàngale aj te amuloo loo aje ji kon néewuñ looy wax lu ne na fekk nga di ko def ndax am na looy wax te defoo ko waaye fekk ngant moo tax defoo ko su boobaa kenn du ne la nag tey nga def ko defe naa loolu leer na nit ki lim lim amut munu ko loolu sharia tegu ko ko waaye nag ginnaaw mën na ko jàngale it nag du tee mu jàngale ko kon kooku dafa war a leer nañ bu ñuy wax ne mu jëfee li muy wax mooy booy woo nit ñi ci imaan na fekk nga nekk mu'min yaa ngi naan mbokk yi gëm leen nekk leen borom tawxid wattandiku leen bokkaale na fekk yooyu yow mucc nga ci loola na fekk sori nga lool luy nuroog bokkaale sori nga lool luy nuroog biddaa ndax yaa ngi woote ci sunna yaa ngi woote ci tawxid loolu moom defe naa kenn amu ci ngànt kon kooku mooy cosaan li nga xam ne moo jiitu nga xam ne kenn amu ci kenn amu ci ngànt dañuy wax ne xam-xam ci boppam moo jëf dañoo taqoo moo tax lenn ci asalafu saalex dañuy wax ne noonu day ba ñuy sàkku xam-xam dëgg la yéene ju sell taxawul woon waaye nag dañoo dem ba ca biir xam-xam ci boppam moo soppi suñ yéene mu faf sell nag kon xam-xam bu sell day jariñ boroom xam-xam bu sell nga xam ne xam-xam bu wér la mën naa fekk boroom njaxas yu bari nekkoon ci xolam ak jubluwaayam ba ci maqaasidam sax muy ay yéeneem xam-xam ba wëlbati ko faf bu jubbanti moo tax xam-xam bi ngay jàng da ngay góorgóorlu rek bam bam mat bu matee borom bi tabaraka wa taala dana la defal tawfiq sa yéene mën na sell te bu sellee li ngay woote mën nga koo jëfee incha allah danañ ci di joxe misaal ci koo xam ne ibnu Qutayba mi ngi koy nettali ab xatib bu mag la woon boo xam ne daal su masaan ba ci dara rek e, day am jeexit lool ci askan wi am benn bis am benn jaam boo xam ne njaam nga muy dund daf koo sonal mu ñëw ci moom ne ko daal imaam dama bëggoon nga ba ci goreel jaam ndaxte lee ñi man maa goreel man mu ne ko baax na dégg naa ko ñu toog ajjuma ñaari ajjuma ñetti ajjuma mu dellusiwaat di ko ko fàttali mu ne ko fàttewuma ko de mu dem toog ba benn ajjuma rek mu daldi ñëw ba ci goreel jaam ñu ne bés booba goreel nañ nangami téeméeri jaam jaam boobee bokkaat bokk ca bi mu ñëwee di ko sant si ak di ko yëgal ne ko ah waaye lii koy waroon naa gaaw ba ma la ko waxee ba tey mu ne ko li tax defuma ko woon mooy dama bëggoon bala ma cee xutba fekk man am naa lu ma goreeleb jaam ba su nit ñi goreele jaam man it ma goreel waaye awma ko woon loolu nag moo taxoon may taxan di jaay ba am loo xam ne jàpp naa ne lii mën naa cee goreelub jaam ma ñëw xutba ci bi nit ñi goreel man it goreel naa ab jaam comme ñëpp. kon loolu misaal la ci ne am na ñoo xam ne dégg nañ e, al amal bi ma taqul déggee nañ ko ne jaaduwut ñi seq benn jéego te fekk du ñoom ñi woote ci benn jéego te du fekk ñoom dañoo seq jéego boobu ba noppi kulli xaal e, di woote ci dara ba noppi di jëf lu juyoog moom kooka dafay dàq nit ñi mi ngi mel ne koo xam ne nee na day faj nit ñi ba noppi moom daa feebar ba noppi fajul boppam kon kooku ci boppam la war a tàmbalee tomb ba ca tegu <clears throat> moo di wuduxu ru'ya wuduxu ru'ya nag buñ ko waxee mooy gis-gis bu leer aw déggiin wu leer woo xam ne li mu bëgg a xutbaa moom leer na ci moom naññi ba mën na ko expliquer lay ya muy joxe dana doon lay yoo xam ne yu dëgër la itam ku ko dégg ku ne da nga xam ne lii dalil la ci lii muy wax masala yi nga xam ne ñoom lay jël wala xew-xew ya qadaaya yi xew bala caa xutba dana ca am lu ko wóor cëng ne lii nii la ak ne am na sax wala amut ndax léeg-léeg mbir xew moo xam ne shaayaa la rumeur la boo xam ne saxagut ne loolu wér na nit ñëw xutba ca ba tuuru ca ëllëg si ñu ne loolakat nekkate ab rumeur la woon boo xam ne amul woon kon war ngaa toog ba sa gis-gis leer ci mbir mi bu dee ci wàllu xam-xam bu dee benn masala wala lu xew ngay jël teey loolu ba loola nga xam xew na dëgg-dëggam déet ak bu xewee ba noppi lu ko wër ci ay mbir ak lu ca aju nga door caa wax ci kanam mbooloo lu ko mooy danga nga wax lu baree bari ci kanam mbooloo ba noppi wëlbatikuwaat di di réccu euh, loolu ci yi bàyyi xel la bokk beneen bi ci des moo di bokk na ci melokaan yi ñuy bëgg ci alxatib mooy al ada as-sawti al jayyid al ada as-sawti al jayyid moo di mën a contrôler <coughs> baatam waxiinam euh, fu mu war a yëkkatee ak fu mu war a suufeele ak nan la war a jàkkaarloog nit ñi ak yu mel noonu léeg-léeg Euh, xatib mën naa ñëw xutbaam bi yépp dafay nuur rek di xool ci suuf ci kayit yi bind léeg-léeg sax mën naa yor baaraamam di di di mel ne kuy kuy ijjee ko boole moo tax dañuy wax ne euh, xatib boo xam ne nit ñi mën nañoo rocc ko ba jeex te du ko yëg kooka war naa jàngiwaat xutba waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan xutba di xem li xew ci jàkka ji xam ngeen qissatu Sulayk al-Ghatafani ba mu duggee ca biir jàkka ja dal di toog daf ko laaj ah ndax julli nga ñaari rakka mu ne déedéet mu ne ko jógal nga julli ñaari rakka kon kooka nit mi ngi xutba waaye mi ngi xool nit ñi xelam mi ngi fi mi ngi ànd akuk dal goo xam ne yii xew mi ngi koy xam am na ñoo xam ne mën nañoo bañ a xool sax ci suuf ñi ngi xool nit ñi waaye su dara doon xewit xelam nekku ci ndax wax ji ak xamaasa beeg mm, tàngoor wa jàpp na ko ba ñi muy xool sax gisu leen kon nitoon nit mënoon naa ñëw toog te du ko bàyyi xel sax ndax kii toog na am déet kon al adaa sawti al jayyid lu baax la ci wàllu ba fekk foo xam ne danga fa war a yëkkatee nga suufeel fa foo war a suufeel nga yëkkatee fa foo war a yëngoo nga yëngoo fa foo warta yëngoo soo waree jàkkaarloog nit ñi nga jàkkaarloog ñoom soo waree jëliwaat beneen maaluuma ci suuf jël ko daal di dellusiwaat yu mel noonu lu am solo la même ñi jàngale journalisme tey ci yu mel noonu ci la ñuy gën a tarkiis ci la ñuy gën a tarkiis ci journal ki nga xam ne dafay nekk journaliste toog ci kanam ab télévision bokkul ak ki làq ci rajo nga xam ne kenn gisu ko boo demee ba toog ci télé am na nooy mel am na itam nooy waxe am na nooy jàkkaarloo nit ñi loolu su ñi nga xam ne dañuy daawa tey feeñ ci média bi ñi gën a war a ittewoo loolu ci lañ bokk ndax kat ci ci sun mbokk yi noonu ñi léeg-léeg nu toog ci télévision di jàngale téere wala dara da ngay nuur rek doo xool nit ñi te loolu moom ci télé moom musiba la moom kenn kenn du ko kon biir jàkka ji itam ab tàggatukaay la boo xam ne yooyu yëpp dalay tàggat ci lu mel noonu ba tax nga man koo nga mën koo bàyyi xel dadi nag bu ñu waxee al adaa sawti da cee am yoo xam ne ay mawaahib la maanaam borom bi tabaraka wa taala mooy may ñeen ñi am baat nag yoo xam ne baat yu neex la baat bu xumb la baat bu mën a kii waaye nag bu baat ba xumbee ba ëppit nag nga mën ko maîtriser nag yemale ko ba du ëpp bu dee baat bu suufee nga am moom lañ la wërsëgale it ku mel ne man léegi léeg nga jéem góor góorgóorlu nag yëkkati ko ndax nit ñi itam dégg dégg li ngay wax maanaam mën a limité xam yow ban façon baat nga yor pour nga man koo jëfandikoo pour nit ñi mën cee jariñu loola lu am solo ci mbir mi la waaye léegi léeg nga gis koo xam ne baatam day suufe ba noppi waxam yëpp mu suufeel ko faf benn yoon su ko defee kenn du dégg wala ku baatam kawe mu gën a kaweel nag faf nit ñi seeni nopp maar day taal day mel ne day bëgg day bëgg a fuq ndax xumbaay boo xam ne bu jéggi dayo adaa sawti dem na ba àggaale ci génn na nit ki sax waaye war nañoo góor góorlu ba sonorisation bi ñuy jëfandikoo sax moom it am na ci paar bu am solo léeg-léeg xatib bi amul benn manqué bu ca nekk waaye gisul sonorisation bu baax benn xum na ba ëpp wala mu ànd ak yuux yoo xam ne mi ngi fukk noppi nit ñi wala muy riir riir yoo xam ne kenn xamut li muy wax wala mu bindoo noo xam ne da ngay da ngay dégg te doo comprendre maanaam yaa ngi dégg riir mi daal waaye baat yi moom par baat koo xàmmee kon yooyu yëpp yu mat bàyyi xel la daanaa wax mbokk yi naan leen euh, lu baree bari ci caaxaankat yi man damaa xamul fi ñuy jëlee ay sonorisation waaye ñoom yi ñuy jëfandikoo day aw yoon toujours ñi bëgg a wax ci lislaam nag seen sonorisation dañuy tàmbali yuux yi tàmbali karaj karaj yu mel noonu ñoo ngi sant suñu borom tabaraka wa taala baaxee nañu ba fii ci jàkka ji ak saal bi euh, wax dëgg yàlla euh, ay mbokki jullit yu baax a baax def nañ fi sonorisation boo xam ne ñi fi ñëw eh, gis nañ ne soppiku na bu baax a baax kon noo ngi ñaan suñu borom tabaraka wa taala mbokk yooye mu defal leen tawfiq suñuy mbokk la ñu nekk fële ca France eh, ñoo ko fi indi yàlla leen suñu borom tabaraka wa taala fay ci loolu tam gën a yaatu ba suñ jàkk yépp yi wax ci na nag laa wax mën a am loo xam ne lu leer a leer la loo xam ne li wax dana mën a àgg ci nit ñi eh, <coughs> bi ci tegu mooy alfasaaxa nag euh, ñu bare bari niñ koy déggee euh, dañoo defe ne mooy ku dégg aw làkk ba mën a wax ay baat yu xóot yoo xam ne ñi koy dégg dañ naan ah, kii moom bu dee arab lay làkk bi ñu ne moo dégg arab bala nga xam baat yi da ngay dellu ci dictionnaire door koo xam bu dee wolof la wala beneen làkk itam ñu ne kooku moo dégg moo dégg nangam ndax baat yi xóot yi muy wax waaye fekk du loola alfasaax dëgg dëgg mooy li nekk ci sa dënn bi nga bëgg nit ñi jot ci nga xam yoon wu gàtt woo xam ne ci ngay jaar rek nit ñi daal di xam li ngay wax te doo ci sonn yoon wu gàtt rek woo xam ne baat yu néew ngay wax rek ñu daal di xam li nga bëgg a wax su ko defee la cay des ay leeralaat lay doon ak yu mel noonu waaye fekk wax ja àgg na loolu mooy fasaaxa fasaaxa moom qudra la ala tabliigi ma yashur ala taxwili shuurihi ila waaqicin maxsuus li ngay yëg nga fexe ba di jot jotli ko nit ñi ñu di ko yëg ni nga koy yëgee kooku mooy fasaaxa ci ak gàttal léeg-léeg nga gis kuy jiim a lu gàtt gàtt nekk ca di wër di wër di dem ak ñëwaat ba mu yàgg faf la nga ci xamoon ko su néew boo tuut sax day jaxasoo yow la nga indaale woon day mujj lëndëm ngir saraa ba mu koy saraa faf na ko lëndëmal wala fekk lu leer loo xam ne jarul sax taxaw mu ñëw taxaw ci lu yàgg di ko saraa ba faf lëndëmalaatal ko kon fasaaxa bokkut ci loolu kooku yu mat bàyyi xel la ci xatib <coughs> al muxaafadatu ala libaas laa'iq shar'an wa urfan góor euh, góorgóorlu ci col mi muy sol waxuñu imaam waaye jàkk ka cay dem borom bi tabaraka wa dafa wax ne yow miy dem ci jàkka solal lu set solal lu set taar sax la ko tudde zinatakum inda kulli masjid seenub taar kooku ñépp lay wax ñu dem ci jàkka kon imaam ji nga xam ne moo jiite mbooloo mi nag war a nekk royukaay kooku taxul ñuy wax waxuñu ne nasol benn xeetu mbubb na sol yu rëy yoo xam ne léeg-léeg am na ñoo xam ne dañoo jàpp ni imaam daal daa war a doon koo ne ay bassin la war a yor yoo xam ne passé nañ ko ba boo ko séenee muy dox da jàpp ne liy dox ne di dem ëpp na kenn war a yor xeetu kaalam muayyan boo xam ne nii la war mel yor bant boo xam ne nii la war a mel nga xam ne daal wax dëgg day mujj imaam ci boppam jafe-jafe lay daal di jur nag ndax léeg-léeg loolu waxtu tàngoor lay dajal woo xam ne su fekkee par force lii la war a sol su boobaa nag doon imaam day daal di bëgg a metti lislaam waxul loolu dafa wax ne col mu baax mooy moo xam ne mu set la mu laab moo xam ne nit ñi nangu nañ ko maanaam nangu nañ ne lii moom wax dëgg yàlla col la mu mu baax mu yell mu yell ci imaam muy sol lu mel noonu léeg-léeg nag bu ñu waxee mu yell société bi daf ci am wàllam maanaam société bi daa am wàllam ci sam col sharia am ci wàllam société bi ak sharia buñ xëccoo sharia nag mooy am dëgg bu boobaa su fekkee sharia dani col mi charte yi laa teg société bi ñëw ne ah lii de man d'accord ma ci bu boobaa sañoo soppi li sharia waxoon ci misaal sharia nee na bul isbaal maanaam bul sol yére yoo xam ne day muur sa dojor soo nekkoon ci société boo xam ne dañ ne man bëgguñu mbubb mu gàtt wala dañ ci mer suñ ko gisee dañuy xeeb boroom it kon dañ lay xala xeeb rek waaye moom faaw nag loolu ci nga war a nag am na yoo xam ne société bi d'accordu ci ba noppi sharia mën na caa ànd ak ñoom sax ndax doonut loo xam ne sharia da ko waral wala mu dugal fa benn àtte boo xam ne buy tere la ci misaal bu doon ca Occident tey réewi tugal ya imaam mën naa ñëw solub kostimam karawaatu def boppum neen taxaw xutba julli mu jeex mu dem waaye ndax suñ société bi nangu na loolu bis bu imaam ne woon tëll rek sol ab kostim karawaatu taxaw daal di tàmbali di xutba da nga dégg faw nag coob moom dana am ci biir jàkka ji naka nag su fekkoon ne imaam daf ne tëll sol ab kap boole ko ak tëni boo xam ne ab jógim lay doon tëni sport taxaw ci kanam jàkk ji tàmbali di xutba kooku jàpp naa ne jàkk yu bari dañ ko fay jële pourtant lim sol de xaraamut sharia neewul bu kenn sol loolu waaye nag zawqu mujtamaat islamiya yi maanaam seen yëg-yëg ak seen bëgg-bëgg moo paase foofu kon jaadu na ci nit ki mu sàmmoonte ak société bi li nga xam ne moom nangu na ko rafetlu ko te sharia bañu ko sol lu mel noonu dara nekku ci eh, ànd ak garde yi nga xam ne nag sharia dafa wax ne jamono yu nekk rek mooy li gën ci col yi di ko bàyyi xel jamono yu ne col mu weex moo gën col mu weexut col mu muur ay dojor daganut col sol sooy dafa xaraam ci góor yu mel noonu sàmmoonte gi nga xam ne yëpp yuñ tere la loolu lu mat bàyyi xel la moo tax ñu ne allaiq shar'an wa urfan bi ci tegu mooy ribaatatul jashi waltizaamu alhudu wal isticdaad liltawaari wal mufaajaat ribaatatul jash mooy ànd akuk dal léeg-léeg nit ñi am na ci ñoo xam ne ni ñu bindoo mooy dañoo yàkkamti léeg-léeg seen làmmiñ day jiitu seenum xel léeg-léeg seen jëf jiitu seenum xel te li jaadu mooy xel mi daa war a jiitu làmmiñ wi door cee tegu xel mi daa war a jiitu jëf ji door cee tegu saa boo xamee ne am na luy jiitu xel mi rek xamal ne te dana bari kon di def tekk di seetlu mbir ba ba décision bi ñu jëlee ko ci biir nga door koo jëlee ci bitti moo xam wax la wala jëf kooku ci liy dimbali nit ki ci rabatatul jash la dadi nag dafa am ñoo xam ni lañ bindoo mais mën nga koo soppi maanaam nit ki mën naa soppi lu bare bare bari ci ay jikkoom ba mel noo xam ne melul woon noonu da nag changement moom du lu yomb euh, docteur doon na ko euh, dis ki doon na conférence sànq ci suba ci wàllu tax taxyir muy soppi doonut loo xam ne lu yomb la ci lu nit ki dem ba tàmm ko waaye nag lu mën a nekk la kon loolu faaw ñu bàyyi ko xel yëg ne nit ki ki bindoo woon ñàkkuk dal bu ko neexee mën naa former boppam di dellu si ndànk-ndànk ba amuk dal amuk teey lu muy def lu nekk mën a tekk xalaat ba xam lii lu ci gën bu dee wax mu door koo wax bu dee jëf mu door koo jëf imaam ci ñi gën a woo loolu ci la bokk ndax léeg-léeg ay tawaari day am mooy ay mbir yu am yoo xam ne ay urgence yoo xam ne day jékki-jékki rek am wala ci jékki-jékki jël décision te mën na koo gaar fekk mi ngi ci kaw xutba minbar bi di xutba mën na xutba ba mu yàgg mu jékki-jékki rek portable di sone sone ngi ci poos boo xam ne ca biir la nekk kooku bu yeexee mën naa def ay ay action yoo xam ne wala yëngatu wala ay kër kër yoo xam ne mën naa yëngal yëngal jàkka ji mën nay xot ba ba mu yàgg aw këyit naaw këyit bi mu war a wax rek naaw su boobaa nu muy def ñu bari ci mbokk yi dañuy wax ne dañuy wàcc jëli ko waaye loolu njuumte la imaam mënu di xot ba ba mu yàgg mu taxaw wàcc dem di fari aw këyit di dellusiwaat waaye su ne tekk ànd akuk dalam ñiy julli kenn dana ko jël jox ko ko loolu moom faaw mu doon rek la mën a demee. mën naa ñëw ci jàkka ji jàpp na ne xutba baa ngi ci poosam ndekete ci meneen mbubb la nekk mu ñëw taxaw inna alhamdulilahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu làmb poosam gisul dara su boobaa nag moom soxla naa solution bi ngeen wax ma nu muy def kooku moom danaa leen déglu tuuti ba xam nan lay war a def imaam lay loolu xalaat bu am am solo la aha Cheikh Abdallah def wala mu jël benn xadis daal di koy kon daal su fekkee dégg nañ li ngeen wax tey wax ju wér la moo di imaam fu mu toll war naa préparer boppam ba bu toogoon ba mu yàgg ñu ne ko jékki-jékkil xutba it war naa mën a am lu mu wax kon su mbir mu nekk taari ñëwee maanaam ab urgence bu mel noonu am na fàtte na ab xutbaam yoratul ab xutba war naa fekk am na lum defoon ci boppam loo xam ne lu gàtt gàtt war na cee mën a wax ak nit ñi fukki minute ak juróom ñaar fukki minute yoo xam ne dana mën a tudd ab xutba su ko defee loolu day daal di nekk solution saafara ci mbir moomu nga xam ne moo xew kon loolu lu mat a bàyyi xel du yëfi caaxaan maanaam imaam ji na bàyyi bopp na préparé boppam yëg ne daa yàlla boo xam ne dafa war a am rasid boobu ma waxoon rasid boobu ma tàmbali woon muy rasidul ilmi wa zaad al thaqaafi rasid mooy tolloo crédit crédit maanaam crédit am war ta jeex fu mu toll fu nekk bopp bi war naa am lu fa nekk loo xam ne kooku crédit lay tudd nga am ne su demee ba mbir sës rek mu delluwaat ci crédit bi nekkoon ci bopp bi daal di delloosiwaat moo xam lu mokkaloon la moo xam qissa la moo xam ay alquran la moo xam ab xadis la faaw daal war naa mën a xutbaal nit ñi xutba boo xam ne bu am njariñ la donte mën naa wuute nag ak ba mu pare préparé woon door a ñëw am na ci imaam yi ñoo xam ne seen xutba ba ñu préparé war caa xutba jee dañ koy mokkal door a ñëw loolu am na imaam yoo xam ne noonu la ñuy def nga xam ne su fa këyit ya nekkee su fa nekkut yëpp moom dañuy taxaw tari ko door a ñëw ci jàkka ji kuy def lu mel noonu lu mel noonu du la gaar nag donte nag wax dëgg yàlla loolu moom euh, xëy na ñëpp ajo woowuñ ko kon daal loolu dafa mel ni mooy tomb bi aju ci euh, imaam donte am na yeneen yuñ ci mën a tudd waaye yooyu mooy yi ci gën a fés mu des nag man alladi yulqihi ginnaaw xam nañ ki nga xam ne mooy sànni xutba bi léegi li muy xutba lu mu doon moom kon kooku dafa jëm ci madmunul xutba bi ci jëkk moo di ixtiyaar al mawdu al munaasib maanaam mawdu xutba bi ci boppam donte imaam buy xutba du ñëw taxaw ne mbokk yi sama mawdu xutba tey mooy nangam maanaam loolu sàkkuwuñ ko ci moom waaye ñii déglu xam nañ ne xutba bi moom ci lii la jëm kon mawdoo munta ñàkk ci xutba donte du taxaw ne lii mooy mawdoo bi waaye mawdoo munta ñàkk ndax ta taxaw wax ci lii wax ca lee wax ca lee wax ca lee wax ca lee rek composé yu dul jeex daal di dem loolu day jaxase waaye mën naa am mawdoo ba noppi nag mawdoo bi am ay masala nag ci biir loolu mën naa nekk waaye na nekkit nag mawdoo bu nekk munaasib jiima xool mawdoo bi dëppale ko ak tomb yi nga xam ne danañ ko tudd sax ci kanam mu di e, jamono jaag ñamuy waxal ak place baag yooyu yëpp dana ñëw waaye jëmmi mawdoo bi ci boppam moom na ko tànn ci tànnin woo xam ne mawdoo bi bu mënee sa xutba la ndax kat léeg-léeg am na mawdoo at yoo xam ne wala ay thèmes yoo xam ne xutba taxu koo jóg ay masala la yoo xam ne dees koo war a dem jàngi door koo mën a xam manees na caa mosle nag ay mbir yoo xam ne <coughs> su fekkee kii xutba ku mën a leeral la mën na cee wax ak nit ñi ci anam goo xam dana leen ci mosal dara waaye yenn mawdu yi nag pour jël ko xutbaa ci kooku ci boppam dafay doon loo xam ne du mën a nekk ndax mawdu xam-xam bu xóot la boo xam ne mutaxassisoon ya sax bala ñu ko jàng nga xam ne spécialiste lañ dañ cay sonn ay ati ati at lañ koy jàng door caa mën a xam dara nga ñëw fas yéene da cee bëgg a xutba loolu doonut loo xam ne luy yomb la euh, am na ay mawduwaat yoo xam ne maanaam ay thèmes yoo xam ne dëgg la yu am njariñ la waaye xutba ci mën naa indi na su fekkee ka cay xutba doonut ku mën a jël lool ay wattandikoom ak yu muy bàyyi xel mën na cee xutba taal ci fitna loo xam ne kenn du xamati fu muy fay ci àdduna kon daal tànn ab mawdu lu mënta ñàkkal la euh, xatib bi nag kii xutba fan la war a jëlee ab mawdu mën na koo jële ci téere yi muy jàng léegi gëstu ci internet beeg am na ay ay sites internet yoo xam ne dafa nekk ci ba kenn xamul nu mu toll léeg-léeg nit mën naa tànnee foofu moo amaana en tant que imam question yi lay dikkal ci société bi te loolu mooy li ci gën a baax ay laaj yoo xam ne dañu la koy laaj laajaat ko laajaat ko nga yëg ne ah lii kat kon mi ngi yëngal société bi kon jaadu na wax ci loo xam ne ñëpp a koy déggandoo kooku des na jële foofu ab ab thème des na ko jële it ci déglu li nga xam ne mooy daw ci jamono déglu presse bi wala lire journaux yi gis nangam xool yëg ne daal am na mbir moo xam ne nag jot nañu wax ci ci jàkka yi waaye nag fekk teeylu nga loola ba mu ñor yàkkamti woo doo doo doo dégg ne teel rek daa dina dama na tàmbali xutba ci te ni ma ko doon waxee léegi xamagoo li ñuy wax sax dëgg la am déet kon boo ko teeyloo ba yëg ne mbir mi daal àgg na ci société bi dëgg dëgg te tasaaroo na lu mel noonu mën naa nekk thème boo xam ne des na ci des na ci xutba ñaareelu mbir mi an yakuna munaasiban li zaman alladi yulqaa fiihi <coughs> thème bi dafa war a dëppoo ak jamono ji nga xam ne ci lañ koy waxe ak jamono ji nga xam ne ci lañ koy waxe defe naa ne eh, ay fan yu néew ci kanam rek ku fekk imaam muy xutba ci koor doo ko wax dara da nga xam ne koor soreetut kon loola dana yenu maanaa waaye bàyyi bañ wori ba ca suba sa nga xëy di xutba ci koor kooka moom wax dëgg ku jullee ci sa jàkka yit dana xam ne kii mbiram doy na waar wala tabaski nañ ba ca suba sa nga dikk taxaw ajjuma jëfa sës rek ngay wax ci àttey tabaski booba xutba waxee su ko ci jamono jañ ko waroon a waxee wax dëgg yàlla kon tànnal ko jamono ji nga xam ne fa la baaxe nga defe ko foofa kooka ci yi tax xutba ba am njariñ njariñ ci la bokk an yakuna al mawduu munaasiban lil makaan alladi yulqaa fiihi béréb bi nga xam ne fa lañ koy defe nga tànn loo xam ne ñooñu loola lañ gën a aajowoo loola ci li tax sab xutba jariñ la am na société yoo xam ne seen feebar dafa jëm ci lekk alali jaamur foofu moom loo fa mën a xutba ci loola béréb la boo xam ne du doy ndax sàcc alali jàmbur la ko tàmbalee ci ñuy sàcc càcc gu ndaw ba ci ñuy sàcc càcc gu digg doomu ba ci ñuy sàcc càcc gu mag bu feesee dell ci société jaadu na imaam ya feebar boobee ñi jéem ko saafara seen kem kàttan ci xutba yi ñuy def ndax béréb bu dëppoo ak lool am na société yoo xam ne shirk moo fa tasaaroo bokkaale foofa it di xutba ci tawxiid ak di leeral nit ñi bokkaale mooy lan ak musiba mi mu doon loolu lu munta ñàkk la kon daal tànn li nga xam ne dëppoo naag béréb bii nga xam ne dañ koo aajowoo ci lu wér nga xutbaal leen ci loolu mooy li nga xam ne mooy li jaadu te mooy tax sab xutba jariñ waaye dikk fekk euh, bii a makkaan place boo xam ne nit ñi li ngay wax yow xamuñu sax lu mu doon nga ñëw taxaw di ko wax ak ñoom euh, am nay jamono daa daanan jullee ci jàkka joo xam ne am na jëm ju fa daan xut def loo xam ne euh, xutba la sax waaye bu dikkee daal ay waxam yépp ànd ak ne jàkka ji ñi fiy dund ay nit yi ordinaire lañ yoo xam ne ñoom ñu ci ëpp jànguñu xamuñu lu xew genn wàllu waxam gépp ci ibnu taymiya la ko jëmaleeg muhammad ibnu abdul wahab ak ñooña li nga xam ne wax xaste lu ko neex mu wax leen te nit ñi xamuñu kan mooy ibnu taymiya xamuñu muhammad ibnu abdul li ngay wax lu mu doon xamuñu ko kooka ak noonoom gu nekk ci xolam la doon génne di jox nit ñi waaye lam ca bëgg moom mënu ko caa am ndax nit ñi xamuñu lu lu mu doon ñoom buñ mënoon nañoo juddu ba faatu te duñ mos a dégg Ibnu Taymiya kon taxaw di wax ne Ibnu Taymiya nii la mel naa la mel nangam nangam nangam loolu daf leen di jaaxal. moo tax am na benn bis génn ci jàkka jooju lu lu xaw a reelu benn waaye ne waa Ibnu Taymiya moom ba nationalité la noonu de saa bu ñëwee rek dañuy dégg waa ji di ci wax ma ne ko ah kooku de defe naa ab syrien la war doon xalaat ci <laughs> bi ci tegu mooy an yakuna al mawduu munaasiban lil ashxaas alladina yulqaa ilayhim foofu ladina moo fi nekk lil ashxaas alladina yulqaa bi na dëppoo ak nit ñi ñuy waxal loolu lu mat bàyyi xel la ndax nit ñi léeg-léeg ngay xutbaal jàkka joo xam ne xam nga ne li fa ëpp mooy aw mag mag ñoo xam ne seeni at mage na kon su boobaa tànn lu dëppoo ak ñoom ak waaraateeg dellu ci yàlla ak góor ak góorgóorloo fonk li des ci seen waxtu jëmale ko ci jaamu yàlla su boobaa dey jariñ eh, léeg-léeg ci université wala fu mel noonu nga xam ne fii xam nga ne ay ndaw ñoo fi nekk ñu toll ci seen digg doole ñooñu xutbaal leen ci lu jëm ci seen mbir loo xam ne lu leen di amal njariñ leen ci seen góorgóorlu ci jàng xam-xam seen seen seen avenir nuñ koy fonke nu ñuy fonke waxtu ku ci mat takki soxna dem takki soxna yu mel noonu nga soññee ci waaye xel munta nangu nga ñëw ci mag ñoo xam ne ay soixante-dix ans quatre-vingts ans ngay wax ci ñoom ci takk soxna ak ay atteem ak yu mel noonu ñoom wet googu doonatul seen nit te ji nga xam ne mooy ji gën a ñor su ko defee ndaw ñi ngay waxal nga xool liñ soxla bu dee mag ñi nga xool liñ soxla jàkka nag lu gën a bari moom dafa am benn particularité boo xam ne mooy ñépp dañ fay daje loolu moo tax mbiram taxut mu yomb lool loolu moo tax léeg-léeg nga wax ci lii léeg-léeg nga wax ci lii léeg-léeg nga boo xam ne mag ñeeko ko moom léeg-léeg boo xam ne jigéen ñee ko moom léeg-léeg boo ne ndaw ñee ko moom léeg-léeg boo xam ne ñëpp ko bokk noonu la ba jàkk war di mel maanaam warta nekk <clears throat> benn benn qualité boo xam ne da nga daan mag ñi rek laay waxal wala ndaw ñi laay waxal wala góor ñi wala jigéen dafay doon boo xam ne day day wër léeg-léeg spécial loo xam ne mag ñee ko moom spécial lu ndaw ñi moom spécial lu jigéen ñi moom léeg-léeg loo xam ne ñépp ko bokk te loola moo ca war a gën a bari nag li ñépp bokk moo ca war a gën a bari an yakuna almawduu mimma yaxtaajuhu assaamicuun mimma yaxtaaju assaamicuuna ila alkalaami fiihi maanaam ñay déglu li ngay wax ñu soxla ko léegi léeg li ngay wax am na njariñ mais ñi ngay waxal ñoom lool amalu leen njariñ boo dikkee fekk béréb boo xam ne ña fa nekk ab àll la ña fa nekk ñépp ay baykat lañ nga di leen xutbaal di wax ci lu jëm ci ay usine ak ay internet yàqute gi nga xam ne nit ñi internet bi da koy yàq gone yeeg yu mel noonu te ñoom courant sax amuñu ko faf wax dëgg yàlla ñoom aajo woowuñ loolu donte li ngay wax am na njariñ waaye ñoom fañ dëkk ab courant sax amuñu ko faf bay seetaan internet ba mu di leen yàq kon loola du seen problème ñoom kon nga li nga xam ne ñi ngay waxal aajo nañ ko nga wax ca ak ñoom loolu mooy dimbali nit ki ngir mu mën a jariñu ci ab ci sab xutba an yakuna munaasiban lil xaal maanaam xutba bi dëppoo ak melokaanu melokaanu ñi ngay waxal wala wala zorf bi ngay waxal wuute na tuuti ak zamaan parce que ci zamaan bi passé liñ ci jublu mooy xutba boo xam ne waxtoom weesu na wala waxtoom jotul nga def ko waaye kii nag xaal bi nga xam ne moo teew tey contexte bi comme niñ koy waxee li xew tey nga xam ne ñépp séentu nañ ne lii ci lañ war a wax tey mu ñëw di wax ci leneen loo xam ne lu jotewul ak loolu dara la léeg-léeg ab xew-xew dana jékki-jékki ni cëpp ci dëkk comme li fi xewoon ci gannaaw ñu jékki-jékki rek ndakaaru gépp ñaar fukki fan amatuñ ndox booba wax dëgg yàlla laaj na nag jàkka yi wax ci lool maanaam xaal la boo xam ne wax ca jot na firil ko nit ñi lii lu mu doon ak lan moo lan moo xew càggante gan moo tege ci sun kaw ba lu mel nii man noo dal ndax càggante ay mooy yàlla la yàlla dinu mbugal wala càggante ñàkk jàpp ci asbaab yi muy sabab yi nu yàlla tàggatal danoo liggéeyut danoo ñàkk jom danoo yaaxus moo tax lu mel nii dal ci sun kaw firil ko nit ñi jàngal ko su ko defee kooku day dëppoo ak contexte bi nga xam ne moom la doomu aadama yi di dund ci jamono jooju. Euh, tomb yooyu daal su fekkee daje na jàpp nañ ne man naa euh, doon jëmmi xutba boo xam ne jàpp nañ ni ñi koy déglu mën nañ caa jariñu euh, la ca mujj moo di <coughs> waaw ba tey des na tuuti waaw bi ca tegu mooy. التحضير الجيد للموضوع non loolu mooy kayfa yulqiha def na musammim barnaamij bi daa xaw a dafa am qalb de wala bi d'accord d'accord waaw maanaam euh, yii yëpp yi ma doon tudd yëpp boo ko seetloo day dellu ci mawdoo bi kon ñaareelu tomb bi ci li nga xam ne moom lay ilqa moom xatib bi moo di at taxdirul jayid lil mawdu préparer xutba bi nag bu baax a baax a baax nit ki xutbaam daf ko war a lu jiitu ba nga xam ne bu ñëwee Eh, li muy ilqa lu lum xam lay doon eh, diqatul xitaab moo di baat yi muy tànn di ci wax ak nit ñi mu doon baat yoo xam ne doomu aadama yi muy waxal xam nañ ko li muy wax ak nit ñi danañ ko xam du ko xóotal ba duñ xam lim wax waaye du ko jaxase itam ci ab saraa bu ëpp boo xam ne day bàyyi lëndëm ci ñoom daanaka boo ko seetloo moog fasaaxa dañuy xaw a lool al inaayatu bi taqrir al usul wal arkaan loolu lu am njariñ ci xutba la moo di su dee xutba ba mu yàgg léeg-léeg mu delsiwaat nag ci yi nga xam ne mooy usulul aqida muy pas-pas ak lu ci aju ak ak lu ci aju yi nga xam ne mooy tax jullit bi nag doon ab jullit bu wér bu jàpp ci alquran ak sunna yooyu saa bu demee nangu cee delsiwaat loolu lu mat bàyyi xel la at tanwiu fi l madamin dama xóotal ci sara bi ma doon sara ci tomb bu njëkk bi fapaar yu bare bari yóbbaale naa ko a at-tanwi'u fil madaamin mooy su xutbaa ci lii tey bu ëllëgee ma xutba ca lee bu ëllëgee ma xutba ca lee lu dul su fekkee dafa jël benn mawdu maanaam benn thème boo xam ne dafa laaj xutba ci ñaari xutba wala ñetti xutba mu door a pare su boobaa kooku silsila lay doon day nekk par ay ay xutba yoo xam ne yu bari lañ ci benn tem loolu itam lu mën a nekk la waaye kii xutba xutba yu bari ci benn thème na bàyyi xel menn mbir moo di mën nga tàmbali benn thème boo xam ne juróomi xutba la aajowoo ci jamono yi nga koy def am na lu xew loo xam ne mëneesu caa bañ a xutba su booba ariteel sa silsila boobu xutba ca loola ba loola jàll nga door a delsiwaat ci silsila bi nga nekkoon kon euh, loolu lu mat a bàyyi xel la al inaayatu bil jaanib al ilmi maanaam yitte woo ne li ngay wax xam-xam la xam-xam la wattandiku sa wax nuroog waxi kuy wax ci mbedd wala waxi koo xam ne day day werante ci ci ci garam place wala yu mel noonu waaye lii waxi xam-xam la li ngay wax dafa war ànd ak ay adilla wax dellu ci alxuraan wax dellu ci sunna eh, alxuraan ji ak sunna si nga nga robtu ko takkale ko ak li nit ñi dund ngir mën a jox nit ñi axkaam yi nga xam ne moom la aajowoo ak eh, fexe ba miinal sa bopp istidlaal maanaam li ngay wax mu doon dalil te dalil yi bañ a nekk dalil yu woyof yu woyof ndax kat léeg-léeg nit ki istidlaal ci dara jàpp ne loolu dalil bu dëgër dëgër la te fekk loolu du dalil du doon dalil dalil bu daifa daif lay doon euh, xam nga ko doon wax naan tuallimunahunna mimma allamakum allah mu ne loolu dañ ci jëlee ne euh, góor ñi dañoo war a jàngal seeni soxna te loolu di wax ci euh, xaj yi nga xam ne dañ leen di jàngal dañ leen di jàngal rëbb foofu la alxuraan di wax nga ne defe naa lii waral ne <clears throat> jigéen war nañ ko jàngal am na yeneen dalil yàlla yu dul boobu hmm? am na yeneen i dalil ci jëfi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay waxam yoo xam ne manees na ca jële ne e, jigéen des koo war a jàngal lu bokkut ak fekk aaya boo xam ne ci ay kilaab lay wax nga jël ko di ko def ci ay jigéen léeg-léeg nga dégg koy istidlaal ne pour wane ne lislaam dafa fonk jigéen mu ne yàlla wàcce na aw saar woo xam ne suuratu nisaa la ko tudde est que loolu dalil la ah ndax loolu dalil la buy wone ne euh, euh, lislaam dafa fonk jigéen defe naa li nekk ci ay dalil yuy wone ne lislaam dafa fonk jigéen waris na cee mën a tegtaloo lu dul ne rek yàlla tudde na ko aw saar wala ndax su fekkee tudde na ko saar te tuddewul góor ñi aw saar kon loolu day wone ne kon yàlla dafa doyadal góor ñi parce que loolu mooy mafhumu qaala bi beneen bi ci des mooy li yàlla tudde lépp ay saar kon day wane ne fonk na leen maanaam suratul baqara suratul naxl suratul kafirun suratul munafiqun ah suratul lahab ndax day wane ne ñooñu kon yàlla da leen a fonk ni mu fonk jigéen kooku du dalil maanaam laal ci boppam dafa doon loo xam ne kii jàng di jottali nit ñoo xam ne day dellu ci alxuraan ak sunna li muy jukki ci alxuraan ak sunna di ko def dalil war na ko xool bu baax a baax boo xam di dalil la am dégg kon attaawud ala al istidlal fexe ba boole ko qubatu dalil lu baax la talamusu ixtiyaajaati al muxaatabin di jéem a xool nit ñi lan lañ gën a woo loolu mooy li ma doon junj sànq di wax ne booy tànn mawdoo bi war nga ko mën a jëlee ci question yi la nit ñi posé en tant que imam boo xam ne nit ñi dañ koy laaj muy muy fatwa biir question yi nga xam ne day baamtu di dem di dem di dellusiwaat ba nar koo sonal man na cee xutba benn yoon mu leer ci mbooloo mi su ko defee nit ñi question yu bari yañ doon euh, posé lu ci bari day daal di saafaraw euh, ba ca tegu muy daruratu ak taxtiit taxtiit nag buñ ko waxee mooy teg plan ci ni ngay xutba en tant que yow imam boo xam ne imaamu ratib nga buy xutba ci jàkk war ngaa yor plan ay xutba yoo xam ne <coughs> lii mooy sa ni nga fas yéene xutba ci weer wi ba ba muy dee wala ñetti weer yi wala ci at mi sax plan boo xam ne danga daal fas naa yéene problème sàngam daal fas naa yéene jàkk ji dana ko saafara ci xutba yi su ko defee tëriin woowu mooy tegu nekk palan boo xam ne mënees na cee jaare di ci ba xutba ci xutba yoo xam ne yu jariñ nit ñi la taxtiit nag dafa doon loo xam ne lu mënta ñàkk ci lu ne la maanaam looy looy def lu nekk war naa am palan comme ni ngay bëgg a tabaxe def plan boo xam ne danga koy teg ba àggal euh, maçon ba ñëw daal di tabax ca la nga doon looy bëgg a def lu nekk dafa jaadu mu am plan bu mel noonu kon xutba day am plan bu mel noonu lu mat fukki xutba war nga ko mën a tegal plan xool mawdoo yi ni nga leen tegee bu jëkk ba lam joteeg ba ca tegu ba ca teguwaat lu joteeg moom ba ca teguwaat lu joteeg moom defe naa bu ñu ñëwee ci at taxtiifu daaw yi danañ xam dara ci importance ak solo si nga xam ne ak taxtiitu daawi am na ko kon loolu day mel ne foofu la jeexee lu aju ci madmunul xutba tomb bi ci tegu nag mooy kayfa yulqiihi sifatul ilqa an naajix maanaam xatiib bi daal am nan ko léegi ab xutba tabe ngi boo xam ne sarti xutba yépp ak xutba bu baax ni mu war a mel daje na ci loxoom léegi nag ilqaa ko moo ci des donte doon naa junj ay tomb yoo xam ne xaw naa dugaale ci loolu mais danañ ci romb incha allah ci lu dul jël waxtu bu bari ngir ñu mën a bàyyi espace boo xam ne danañ ci mën a munaqasha incha allah kayfa yastaftixu alxutba def naa laaj boobu ñu bari suñ ko laajoon day wax ne rek ci sant yàlla lay tàmbalee euh, julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la shakk ne kii xutba ajuma ci loolu ci lay tàmbalee waaye duñ fàtte ne eh, lii nuy wax nii dafa làmboo xutbatul jumaa dafa làmboo muxaadara dafa làmboo bépp wax boo xam ne nit ki day jàkkaarloog ay doomu aadama di di wax ak ñoom yonent bi sallallahu alayhi lu bari ci ay xutbaam léeg-léeg wala loo xam ne bëgg na ko li nit ñi sax da koy tàmbalee ci lu mel ne question walla mu wax waxin boo xam ne ab xissa bu gàtt wala yu mel noonu ñépp dañuy àndandoo toog di ko déglu gën koo jox itte am na waxin woo xam ne bu ko nit ki ubbee waxinam nit ñee doon bëgg a nelaw ñépp dañuy yow kenn duutu kenn duutu nelaw kon tariqatul istiftaax eh, am ci dara lu nekk lu xëcc nit ñi wala lu leen bett loolu lu am njariñ ci biir istiftaax bi la su fekkee ne xutbatul juma la wala mu nekk muxaadara wala leneen bokk na ci madaamin yi nga xam ne am na njariñ lool ci naka lay defe xutba bi mooy mu bañ a guddal ba ëpp lu bari ci nit ñi bu ñuy bind li ñuy bind du ëpp waaye bu ñu tàmbalee di wax nag wax ji mooy mujj bari nag ndax wax ci boppam dafa bindoo noo xam ne nit ki euh, comme ni ko benn xutbakat doon waxe nee na daal suy bëgg jël kàddu gi di wax euh, day àgg ci mel ni ku ku ñuy bëgg yan aw doj wala koo xam ne daal fi muy bëgg a dugg nii lu méttee méttee métti ci moom la waaye nee na bu taxawee di wax nag ba am benn minute maanaam ñu rey ko sax moo ko gënal ñu dagg xo li muy wax. maanaam wax dafa am luy xëcce lu ci nekk loo xam ne nit ki bu yeexee day wax di dem rek surtout muy wax nag gis nit ñi di ko déglu day jàpp li muy wax moom bu continué woon suba itam day baax su ko defee nag bañ a tënku ci nit ñi waaye xool euh, fi ngay yemale say mbir su ko defee nga xutbaa noona loo xam ne lu am jariñ la bañ ko guddal ndax bokkoon na ci. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim doon jàngale ci fiq mu ne bokk na ci fiqu nit ki mooy gàttal ab xutba maanaam ma innatun min fiqihi ma mandarga la ci déggu fiqu nit ki daal ab xutbaam bañ a gudd ba ëpp ba dañ ko daan méngaleeg julli ga wala julli ga gën a gën a gudd sax xutba ba donte boroom xam-xam yi niñ firee qisaru xutbatihi wa tuulu salaatihi loolu la wax niñ ko niñ ko firee waxuñu ne dañoo méngale diggante xutba bi ak julli gi waaye julli gi daal buñ ko méngaleeg julli ya ca des bokkul ca yi ci gën a gàtt xutba bi buñ ko booleeg yeneen discours yi nit koy wax te bokkul ca yi ci gën a gudd maanaam noonu lañ koy firee waaye waxul ne xutba bi ngay xutba na nga julli julli gu ko gën a gudd ndax bul fàtte ne waxoon na ne soo jullee ci mbooloo te ajjuma fa la mbooloo ëppee bul guddal ndax ku boroom aajo ngi sa gannaaw ku lotta ngi ci sa gannaaw ku mel ni ngi sa gannaaw ku feebara ngoog ah, mu ne waaye na gàttal soo jullilee yow doo nga nag sa julli bopp nee nga guddal nu la neexe kon texte boobu duñ ko déggee ni julli gi dafay war a gudd benn guddaay bi adamul ajala mooy ñàkk a yàkkamti ah, kii xutba war naa ànd ak dara ci ak dal goo xam ne dana ko wóor ne li muy wax mu ngi àgg ci noppi nit ñi ci ak dal ndax nopp moo yeneen yi ñuy sol yépp ñoo yam sooy sol ndànk-ndànk day dem waaye su tadafuqee benn yoon rek lépp bëgg a tuuru benn yoon yow li ngay wax say wax dana jàll mais du ñëw boo jëloon butéel tey nga bëgg a yor potum ndox rek sotti ko ci kaw genn wàll gi yépp ci suuf lay dem mais boo xelee ndànk nag day dugg ci biir baatu butéel bi ndànk nopp noonu la mel wax ju tey ji ñëw baat par baat baat par baat day dugg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci wax waxinam mooy wax ju dal joo xam ne dana dem sax ba xutba bi ba baatam yëkkatiku bañ ne ay bëtam day xonq ba mel ni kuy xupp sax ab ab armée buy bëgg a xeex waaye teewut ànd ak loolu lépp dañ ne melokaanu waxam mooy ak dal lay àndal goo xam ne baat yi muy wax bu doon kuy bind la mën a bind léeg-léeg mu wax baat bi waxaat ko waxaat ko waxaat ko sax ba muy ñetti yoon ngir mu mën a àgg ci nit ñi ba mën a leer kon kii wax tiim ay kayit wala mu yor e, xutba bu ne ci xelam mu bëgg koo jot li nit ñi du caagi ni itteem jépp mooy nu muy def ba jeexal waaye nu muy def ba lii mu bëgg a wax mu àgg ci nit ñi kon kooku ajana ajana ak dal bu baax a baax ngir mu mën a àgg ci nit ñi te bañ a yàkkamti bokk na ci leen insiyaaq wara al aatifa maanaam léeg-léeg nit ki li ñu tuddee aatifa muy sentiment daf koy xëcc ci mbir ba mu àggale xutbaam foo xam ne dana dem ba wax njaaxum te du ko yëg léeg-léeg sentiment bi fi mu koy jógee aatifa bi mooy ñi muy xool maanaam nit ñi nga xam ne ñoo toog public bi koy bi koy seetaan bi koy déglu léeg-léeg mu topp leen ba dugg ci njaaxum am na ñoo xam ne boo leen di xool dañuy def seen bopp ak yu mel noonu mooy wane ni li ngay wax kon mi ngi am njariñ ngay continuer rek di dugg ci loolu fekk boo demee foofa benn ligne rouge la boo xam ne bu nga waroon a taxaw nga continuer di dem rek waaja di yëngal boppam ba nga dugg ci njaaxum nag léeg ngay wax lu am njariñ loo xam ne dafa waroon a leer ci nit ñi nga gis ku fénati fa li mel ne amu ci soxla nga de ah loolu de kon wërta am solo daal di continuer génn ca lool te fekk boo ca continuer woon nit ñi jariñu ci kon bul topp nit ñi seetal li nga xam ne daal mooy li digg doomu li nga bëgg a wax yow nga wax ko ci waxin wu digg doomu mu àgg ci nit ñi ñu mën cee jariñu waaye bul jàpp mukk ne doomu aadama yi nga toogal ci saal bi tey seenu rafetlu li ngay wax ak seenu ñaawlu ko foofu la njariñ li nekk ak foofu la lor ji nekk déedéet watandikul insiyaaq waraa al aatiba التحدث باللغة التي يفهمها السامع loolu dafay feeñ même ci misaal yi ngay joxe misaal yi ngay joxe ñi ngay waxal fa ñuy dund misaal ya fa mën a jariñ yooya ngay jëfandikoo boo demee feneen foo xam ne yeneeni misaal a fa jariñ nga jëfandikoo ñooñu kon luxa bi ngay waxal dafa war a doon maanaam làng la war a doon boo xam ne ñi ngay waxal dañ koy dégg doon naa ko misaal sànq dem ba ca àll ba ngay joxe say misaal di ko def ci ay ordinateur ak ay ay internet ak yu mel noonu te ñooñu xamuñu loolu dunduñu ko loola njuumte lay doon ñëw ba fii ngay joxe misaal ci béréb boo xam ne ay taax lañ nit ñi dañuy xëy dem ci seeni bureau wàcc nga di leen xutbaal wala nga di leen conférence sa exemple yi ngay joxe yépp nga di ko joxe ca la ne ca tool ya ak ca mbay ma <coughs> ca nam gën a xoote dugg ca raadu baag bayaat baag ballar ceeg ya nga xam ne terme ya ngay jëfandikoo sax kenn xamu ko ña ngay waxal xamuñu ko faf da wax ba sonn da nga expliquer da nga joxe misaal te li ngay wax du àgg ci nit ñi lu tax mooy danga ngaa waxut ñoom ci langue boo xam ne buñ xam la ànd ak ne benn misaal rek mënoon nga leen ko jox ci li ngay dund li ngay wax lépp leer nga jàll ci leneen kon loolu ci li mat a bàyyi xel bu baax a baax ci la bokk alxadar min takraari baad al ibarat léeg nit ki ak tam mi ngi feeñe ci baat yoo xam ne da koy wax rek di ko baamtuwaat bu fekkee arab lay wax am na ñoo xam ne baat bu ñu wax ne yaa yaa ni yaa nii loolu lu mat a bàyyi xel la am na ñoo xam ne dañ naan dégg ko nangam naan dégg ko ma dégg ko dégg ko yi naan kon kon ñaari baat yoo wax ne kon kon ay mbir a ngi ci biir yoo xam ne <laughs> day bari ci sa biir wax ba mujj day mujj kii déglu loola daf koy sonal mu mat a bàyyi xel nag ne baat bu nekk su amee foo ko war a jëfandikoo moom foo mën nga ko faa jëfandikoo waaye nag nga wattandiku parce que ñiy faral di wax yaa nii baat boobu doyewuñ ko te defu fa dara maanaam maanaam mën nañu wax li ñuy wax dem te fekk soxlawuñ ko kon wattandikul baamtu ay baat yoo xam ne amut maanaa fa nga koy waxe alibtiaadu an takalluf wattandiku itam li ñu tudde takalluf takalluf nag buñ ko waxee mooy yan sa bopp loo xam ne kenn yanu la ko ci wax yin yan sa bopp luñ la yanut léeg-léeg mën naa dem ba dugg ci Euh, bu dee ñay làkk arab li ñu tudde sajo fas yéene ne daal yow say xutba da ngaa fas yéene yépp nga di ko sajo xam ne daal baat bu mu daanoo daal bu bëccëg si ñëwee ci lay daanoo bu bii ñëwee bu ñëwee ci lay daanoo xam nga ne kooku benn xeet la ci xeeti adab yi nga xam ne daa toll woon ay jamono ci taarix euh, dañ ko fonkoon lool demoon na sax ba àgg ci état ci boppam jël décret ne bépp xitaab rasmi maanaam bépp leetar bu officiel suñ koy bind nañ ko bind ci sajo soo mënta sajo nga seet ku la bindal euh, ñu ngi ciy nettali xissa bu bu reelu lool benn waali xam na mooy gouverneur ba da doon bind leetar jëmale ko ci qaadi ja nekk xum maanaam attekat ba fa nekk bim nuyoo ba àggal mu ne ayyuhal qaadi bi xum xalaat lu muy àggalee baat bi pour mën a amaat geneenu miim gu sukkoon xalaat xalaat xalaat gisul dara mu ne qad azalnaaka fa qum loolu taxuloon mu bind leetar bi mais ñàkk gisul lu ko àggalee su fekkee sañoo rek dem na ba àgg ci di wàcce nit ki palaasam te loolu taxuloon ngay bind su boobaa takalluf nag ñëw na léeg-léeg nga gis boo dégloo euh, yàlla xam ne yenn xutba yi nga xam ne seen boroom dañuy sañoo dana indi ibaara boo xam ne da lay wóor ne mu ko tàbbal wut beneen baat rek moo ko fa indi waaye amu fa benn maana loolu nag des koy wattandiku ci biir ci biir ab xutba wala biir ab discours wala ab muxaadara day wone ne ak lot lay wone takalluf moom des koy wattandi rek noonu muy amee nag takalluf lafzi maanaam ci baat yi ngay jëfandikoo noonu lay amee itam xeetu takalluf boo xam ne moom it ci maanaam yi lay doon fexe ba indi ay maanaa yoo xam ne day gën a xóot pour won nit ñi ne kii borom culture la am na yum xam yoo xam ne ñim toogal xamuñu ko dugg ba dugg ci yu xóot yoo xam ne dem na ba tàbbal su bopp ci wax loo xam ne sax faf yow xamoo ko euh, ni nga koy waxee ña koy dégg te xamuñu ci dara defe ne xam nga dara fekk li ngay wax ndekete du dara sax yow ci sa jëmmi bopp loolu lépp takalluf moo koy indi mu doon loo xam ne lu mat a wattandiku la ijtinaab al mubaalaxa fi tafasil allati la xaajata ilayha xutbatul jumaa maanaam wattandikoo dugg ci yenn détails yoo xam ne soxla wuñ ko xutba xutba bu ajjuma dafa wuute ak conférence maanaam muxaadara mën ngaa dugg ci ay ay ay ay ay tafasil ay mbir yoo xam ne mën ngaa dem baag ci laaj nit sax muy tontu ay détails mais xutbatu jumaa nag min minbar dafa am maqaama boo xam ne même munkaraat yi boo leen di tudd musiba la ngay tafsil di dugg ci biir am na ñoo xam léeg-léeg ñu taxaw ci minbar di xutba dem ba dugg ci xeeti pecc ya ya nit ñuy fecc ca marché ba xeeti col yu bon ya ñuy sol ak seeni tur tur yu bees ya sax faf kooku musiba la ci kaw minbar détail yu sori yi boo ci duggee ba àgg foofa day mujj minbar bi nga taxaw maqaamaam sax faf na wàcc maanaam tolloo nga ak waa marché ba loolu des koy wattandiku kon maqaamu ijmaal fi nga nekk jamono yi nga xasee taxaw ci minbar bi nekkatoo ki ne ci taabal ji di conférence waaye yaa ngi nekk ci kaw foo xam ne yi ngay wax laajatul yenn détails yu sew yeeg yu juunu yeeg tur yi ñu ñàkk solo ñeeg ñu tekkiwul dara jaar ci seeni tur ñooñu yeyowuñ kenn di tudd seen tur ci biir jàkk waxuma laa ci kaw minbar su ko defee ma la bon nga wone ne nangam nangamam nangam ak nangam bon na ci lu dul ngay dugg ci ay tafasil yoo xam ne day àgg ci doyadal doyadal xutba bi nga xam ne mooy xutbatul juma al ihtimam bil xaatima euh, xutba bi fa muy jeexe fa muy jeexe dafa cee am solo lool ndax dafay doon lu mel ne ab tàggoo la xaw a nuru maanaam dafa war bindoo noo xam ne daal ñépp ñi doon déglu xam nañ ne mi ngi jeex fi mu nekk xam nañ ne mi ngi jeex nanga doon waxe waxiin wa soppiku na mottali mottaliku na dem na ba ñépp yëg nañ ne mi ngi suufe fi mu ne waxiin waa ngi gën a suufe la nga doon wax ci boppam itam mel na ne yaa ngi résumé li weesu woon di gàttalaat di dellu si nga xam ne ñëpp am nañ yëg-yëg de mi ngi jeex waaye di xutba ba di aj di aj ba ci digg tàngoor ba ñëpp aju rek nga jekki-jekki ne salaamaaleykum wa yooyu nit ña dañuy aju maanaam dañu aju ko faaw war naa am noonu mu amee fu mu tàmbalee dafa war a yéeg bu yéegee ba ca kaw di wàcc ndànk di dellu si di dellu ba nga xam ne nag agsi na léegi ci suuf xutba bi jeex kenn ku nekk ànd ak sa jàmm daal di mën a di mën a dem yii daal ay tomb la yoo xam ne jàpp naa ne su ko nit ki bàyyee xel ci ab xutbaam incha allahu borom bi tabaraka wa taala mën naa dogal e, xutba bi dana bindoo ni nga xam ne noonu la ko borom bëggee kon leneen li ci des ñu delloo kàddu gi njiitul jotaay bi di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq lépp loo xam ne ñu ngi koy yëngatu ci jàkka yi ak ci mbooloo yi ak liggéey bi sun borom tabaraka wa taala may nu ci ak sellal te may nu ci tawfiq ba liggéey bi àgg fi nga xam ne weesu na yéene yi nga xam ne nun ñëpp moom lañ ci am wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain